bokk yi diñ koy defee rek ci di fàttalikuwaat fàttali di di bokk di fàttalikuwaat ak di bokk di nafaraat ñu ñu ngi waxtaane woon ajuma ji weesu waxtu ak am solo gum am solo ci ab jullit mu war ko bàyyi xel ak ni mu ko war a nose ba nga xam ne dana ca mën a jariñu ni mu ci war a jariñoo ba noppi itam bu ko nosee mu nosu ca biir nos boobay nga xam ne moo la nos di ca dox doxin wu wa nga wa nga xam ne moo ci war mu mel ni nag lislaam dañoo teel a bàyyiloo xel ci ne waxtu am gi am solo tax na buñ ci bëggee jariñoo ni ñu ci war a jariñoo dañoo war a nekk ñun ñi nga xam ne ñoo ko séq benn ngir man cee jariñoo ni nga xam ne ci war a jariñoo ñu ngir itam man cee fàggu li nga xam ne moom lañ ci war a fàggu ndax xam nañ ne lislaam wala adduna sépp suñ borom da koo teg ci waxtu mel ni kon waxtu lu am solo la lu mat a bàyyi xel la te li waxtu woowu nga xam ne moom la moom la suñ borom teg ci def muy àdduna waxtu woowu lim ci jox doomu adama dafa néew ba nga xam ne doomu aadama ji munta xam li nga xam ne moom lañ ko ci jox lu mu toll ba tax na nag comme dañ waxtu lañ ko ay waxtu lañ ko jox yoo xam ne moom la war a dund ci àdduna si kon war naa bàyyi xel waxtu yooyu ba xam nan la ci war a jëriñoo jëriñ jëriñinu rafet rawati na nag mu doon loo xam ne dañ ko cee defloo ci àdduna defloo ko ci àllaaxira kon waxtu lu mat a bàyyi xel la waaye nag li ni ñu koy bàyyee xel mooy faaw ñu nos ko buñ ko nosee itam faaw ñu nosu ñun tam ci biir nos bee nga xam ne moom boobee nga xam ne moom lañ nosu la loolu nag moo tax lislaam mu bàyyi xel bennoo boo xam ne dañ ko war a bennoo ndax loolu mooy tax nos ga nga xam ne moom loolee ñu nos ñu mën caa jariñu ñun ñëpp niñ ci war a jariñoo ndax bu fekkee ne dañ dañ koo nos ba noppi te am ñu jaar ñeneen waxtu am ñeneen ñoo xam ne dañoo jaar ci feneen wala ñu jëm feneen yaakaar naa nañ ci war a jariñoo duñ ci war nañ duñ ko jariñoo loolu nag moo tax ba lislaam dafa bàyyi xel ne ngir ñu mbari ñu mën a jariñoo ci waxtu wi niñ ko war a jariñoo ñun ñëpp dañoo war a nekk benn say ngir mën a jariñoo ci waxtu wi ni nga xam ne moom lañ ko war a jariñoo loolu tax loolu nag moo tax lislaam ci ay jàngaleem ñu gis ne lépp da tënk ci ñu bëgg ñu doon benn ndax xam nañ ne pas-pas bi nga xam ne moom la ab jullit di yor jullit bu ne yaa yaa sa morom yéen ko bokkale xam na ne jaamu yàlla gi nga xam ne moom la ñuy def jullit bu ne yaag sa moroom yéen a ko bokkale xam nañ ne yoon yi nga xam ne moom la suñu borom tër muy luwaay nga xam ne moom la ñu war a atte yow xam nañ ne benn benn atte la boo xam ne suñ borom moo ko andi xam nañ ne itam kaaba gi nga xam ne moom la ñuy jublu ngir ju julli genn kaaba la xam nañ ne itam jaamu yàlla li tax ñu di ko def benn lenn la rek muy màggal suñu borom xam xamal ko ne ko yaay su yaa ñu war a yilif xamal ko ne itam yaay ki nga xam ne yaa war a dox yaa yaa yaa am sañ-sañ ñun loolu nag mooy tekki ne kon bennoo day doon na lu am solo ci lislaam ba tax na de bennoo itam doon na loo xam ne mooy mën a tax ñu mën a jagal suñu àdduna mooy mën a tax itam ñu mën a jagal suñu àllaaxira loolu moo tax suñu borom di ñu so di ñu di ñu soññ ci ne bu leen juyoo mukk ndax juyoo kat li muy indi mooy ak néew doole lay indi nga xam nañ ni néew doole li muy indi mooy ak doyadi ak ak matadi loolu lay indi kon ba tax na suñu borom soññ ñu ñu war a nekk benn war a bokk genn jublu bokk itam fenn foo xam ne fa la jëm mën a nos suñuy waxtu ba mën cee jariñu ni ñu ci war a jariñoo loolu nag tax na ba lislaam lépp loo xam ne day indi ak taqalikoo wala day andi ak ak ñàkk ak juyoo ci biir lislaam wala ci biir jullit ñi suñ borom da ko da ko da taral mbugal yi nga xam ne moom la ci teg ci képp koo xam ne yaa ngi koy def bokk na ci li nga xam ne mooy moom mooy mbugal yi nga xam ne teg na ko ñi nga xam ne dañuy indi dara ci ci lislaam loo xam ne day indi ak tàqali ko mooy ñi nga xam ne dañuy lor ab jullit te lor googee teguñ ko ci benn àq dañ koy def rek ci seen coobaree bopp wala dañ koy def ci seen bëgg bëgg-bëgg bopp suñ borom xam ne ne képp koo xam ne yaa ngi lool ab jullit moo xam jullit bu góor la wala bu jigéen la na nga xam ne yanu nga loo xam ne ab bàkkaar bu rëy la yanu nga itam aw duur woo xam ne duur wu rëy la ba tax na loola lu mat a bàyyi xel la bokk na ci li nga xam ne itam suñ borom dafa tëkku ñi nga xam ne dañ koy def te loolee buñ ko defee li muy indi mooy ak tàqalikoo ak juyoo mooy génne ay rumeur yoo xam ne xam nga ne lii musiba rek lay jur ci doomu aadama yi loola bokk na ci li nga xam ne lislaam da ko bañ ba tax ne wax na ne képp koo xam ne def nga ko na nga xam ne da nga am bugal mu rëy mu metti ci àdduna si ak ci àllaaxira ji lépp nag doon loo xam ne kon dañuy won ne lislaam bëgg na ñu nekk benn ndax xam nañ ne nekk benn googee mooy tax ñu mën a nosu xam na ne itam mooy mooy tax ñu mën a nosu ca biir lañ nos loolu nag boo tax kon faw ñu war a bàyyi xel ne nañ nekk benn te lépp loo xam ne day indi ak tàqalikoo wala indi ak juyoo ci biir jullit ñi ñu fas yéene koo daw ndax suñ boroom dafa dam na dañ ñoo defarloo adduna defarloo nooñu àllaaxira te xam nañ ne jëf ji nga xam ne moom la ñuy fay tegu ko ci waxtu tegu ko ci weer wu jeex tegu ko ci jëf ja ngay jëf bu jeexee moom li ñu ko teg rek ci kaw jëf ja na koo jëfe jëfee loola ci ci kaw loolee la lay fayee loola nag lim lay bàyyiloo xel mooy daa bëgg nga xam ne jëf jii mu lay jëfloo doonut loo xam ne dang dafa dafa war a doon loo xam ne lenn rek la war a doon ba nga xam ne moom da nga ciy bàyyi xel muy jëf yu àdduna kes kese ngay jàpp ne moom nga war a jëf wala da nga war a jëf ak jëfi àllaaxira waaye ñaar yëpp ngay da ngay boole jëf yu àdduna ak àllaaxira moo tax joxu taa ci ne boo defee temps sàngam ci laa lay fay waxu la itam boo defee waxtu sàngam ci laa lay fay waaye dalaa wax ne boo defee jëf ji rek ci laa lay fay loolu kon lim nuy won mooy am am solo gi nga xam ne moom la amal solo jëf ak waxtu wi nga ñàkk gi mu ñàkk tënk ci ne waxtu woowee nga xam ne moom la ñu jeexal buñ jàpp ne mukk dañ koy def rek ngir àllaaxira kese wala dañ koy def ngir àdduna kese waaye dañ ko war a def ngir àdduna ak àllaaxira loolu lu mat a bàyyi xel la lu am solo la ñaareel ba itam xam nañ ne wax nu dul noona lu rëy rëy la ci lislaam ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mas laaj ne ko ndax ab jullit dana naan sàngara mu ne waaw ñu ne ko ndax ab jullit dana njaaloo mu ne waaw ñu ne ko ndax jullit dana fen mu ne loolu moom jullit du ko def kon mu mel ni fen kon lu rëy rëy la ci suñ borom bokk na ci li ñu koy won sax mooy fen boo ko defee àdduna du ko xajoo ba day dem ca kaw bu ci suñ borom bu demee ci suñu borom ne ko maay fenu diw sàngam fen woowee nag bu ko defee bu ne maay diw fen maay maay fenu diw sàngam suñ borom dana rëbb waaje nga xam ne moom la fen moo fen malaayika yi nga xam ne ñoo fa nekk itam danañ ko rëbb kon mu mel ni kon fen lu rëy rëy la waaye li muy rëy rëy am na am na lislaam daganal na ko te loola li tax mu daganal ko mooy bañ rek ak taqalikoo am bañ itam ak juyooyu am mooy lépp loo xam ne yaa ngi koy yaa ngi koy def ci loo xam ne li nga ca jublu mooy defare ak defar loola suñ boroom nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam le ne loola duñ ko tuddee ak fen duñ ko tuddee fen duñ ko tuddee wax waxin waxin wax joo xam ne teguwut fi mu war a tegu waaye dañ koo teg dañ boo ko defee ngir loolu day mel ni lu baax rek la tax a jóg te lu baax loolee ba dana tax ba fen woowee wala wax ja nga wax ji te teguwut fi mu war a tegu suñ borom na la ko jéggal ngir lu baax loolee nga ca def kon mu mel ni kon loolu dañuy woon rek ne maanaam l'islam bëgg na ñu nekk benn ndax xam na ne ñu nekk benn mooy tax ñu mën a nos bu ñooy mooy tax itam ñu ñu mën a nosu ca lañ nos kon ñu bàyyi xel bu baax a baax ci xam ne lislaam bëgg na ñuy bàyyi xel li nga xam ne mooy waxtu te bàyyi bàyyi xel googee itam xam na ne ngir ñu mën koo def ni ñu ko war a defee faaw ñu nekk benn fawu ñu boole suñu bopp faaw ñuy dimbalante faaw ñu bëggante ni nga xam ne faaw ñuy ñu doon ñoo xam ne itam dañuy rafet njott ci suñu mbokk jullit ndax yan suñ borom dafa waxoon ci ne lawlaa istamaitumo zannal muminuuna mu muminaat bi anfusihim xayra waxaaloo hada ifkun mubin mooy bu fekkee ne jullit yi sax am nga koo xam ne ra ñaaw nga ci bopp wala am nga koo xam ne def na loo xam ne jàpp nga ne xëy na lii rafetul nee na na nga na nga na nga soppi jaaw njott waroon a def ak xel xalaat yooyu nga waroon a xam na nga ko moom nga waroon a def nanga ko soppi def ko muy lu baax te jàpp ne jullit sa mën a def lu dul lu baax loola nag kon lépp lim ci tekki mooy bëgg rek ñu nekk benn bëgg ñu boole suñuy doole bëgg ñu boole suñuy xel bëgg ñu boole suñuy kattan ngir li nga xam ne moom lañ ñu sanc ci àdduna si ñu mën koo def def yi nu rafet moom suñ borom mi nga xam ne nag mooy borom kattan te mooy boroomu man te mooy ki nga xam ne moo sañ yàlla nañuy dimbale ba li nga xam ne moom la bëgg ci ñu booloo ko ñu booloo booloo googu mu defal nu ko ci rafet raxasal nu xol yi raxasal raxasal nu xalaat yi ba li nga xam ne mooy booloo ak benn ak bennoo ñu mën koo def ñi nga xam ne ni ko suñu borom bëgge loolu moo nuy jëriñ ci àdduna moo nuy jëriñ ci àllaaxira yàlla nañ ko suñu borom defal ñu ñaan nag ginnaaw loolu di tàllal suñuy loxo suñu boroom mi nga xam ne mooy borom kàttan te mooy borom man mu dimbali nu ba Cheikh mu Mountakha mi nga xam ne moo fi nekk te taxawal fi lislaam ak képp koo xam ne taxawal nga fi lislaam yow la yàlla na la suñu borom jàppale taxawu la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 عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم